su boobaa nag moo tudd mahmoos mel ne akala mbaa xaraa mbaa saala yooyu amuñu araf rag waaye dañoo am am sa moo tax ñu leen wooye mahmoos ak taalisu al mudaxafu mooy lu ñu ful maa mooy li nga xam ne kaana nekk na xarfaahu yaay arafam te ak taani mooy wu ñaareeloo wa taalisu ak wu ñetteeloo min jinsin di bokk ci aw xeet di bokk ci aw xeet waaxit wu di wenn saa yoo xam ne fii xal boo ko defee ñetti araf arafu ñaareelu ak ñetteelu ñoo bokk façon ni ki bokk doon yaari daal ni ki xadda bàyyi ko ci xa da da wala bokk nekk yaari ra ni ki farra bàyyi ko ci fa ra ra loolu mu tudd almudahaf daañu ko wax itam almudahaf alfiilu fi xal nag almutallu bi aji ràgg huwa moom maa mooy ba nga xam ne kaana nekk na bax du xuroof yi lenn ci arafam yi al asliyati yi ko jub cosaan ahrufil illati di bokk ci arafi ràgg yi waxoo moom anwaahun ay façon la xam sat ñu di juróom nee na boo ne fexal bu ràgg rek moom yomb naa xam mooy fexal boo xam ne yetti araf yi nga xam ne mooy ci cosaan boo ko dee xool am na ci woo xam ne araf ràgg la maanaam am na ci wu nekk alif mbaa waaw mbaa yaa kooku nee na mën naa nekk juróomi façon al awal al misaal léeg mu tudd misaal maa mooy la nga xam ne kaana nekk na awaluhoo njëlbeenam xarfa ay lat ndi araf ràgg al saani al ajwafu maa mooy la nga xam ne kaana nekk na wasatuhoo diggam ba xarfa ay latin al taalisu an naaxis mooy naaxis maa mooy la nga xam ne kaana nekk na aaxiruhu mu jëm nga xarfa ay latin al raabihu al lafiifu al mafruuqu mooy lafiif bu ñu tàggale maa mooy ba nga xam ne kaana nekk na awaluhu njëlbeenam nga wa aaxiruhu ak mu jëm nga xarfay ay latin di yaari arafi ràgg al xaamisu nag al lafiifu al maqroonu mooy lafiif bu ñu lëkkale maa mooy ba nga xam ne kaana nekk na wasatuhoo diggam ba wa aaxiruhu ak mu jëm nga xarfay ay latin di yaari arafi ràgg waaw nee na misaal yoo mën a xam moo yetti araf yi boo ko dee xool ba ci njëkk rek moo ràgg mel ne wasaba tëb na wala waqaba tàbbi na ci isa waqaba al ajoof yoo mën a xamee mooy woo xam ne araf ba ci digg ba rek moo ràgg ba ci njëkk ràggu ba ci mujj ràggut mel ne xaafa ragal na bàyyi ko ci xawifa wala naama nelaw na bàyyi ko ci nawama wala saama woor na bàyyi ko ci sawama naaxis mooy loo xam ne araf ba ci mujj dong ràgg wu njëkk wa ràggut wu ñaareel wa ràggut waaw lu mel ne rama sànni na xam ne rama ya gi rek moo ràgg al lafiifu al mafruuqu nag lafiif moom foo ko dégg rek mooy am na yaar yu ràgg yett ya kooku nag ñaar la maanaam bu ñu nee lafiif mooy loo xam ne am na ñaari araf ràgg ñaari façon lay doon ndax léeg-léeg yaar yi ràgg dañuy susaloo léeg-léeg itam ñu bañ a susaloo bu fekkee susaloo wuñ mooy mafruuq mooy nga xam ne araf bu njëkk wa ak bu mujj wa ñoo ràgg ni ki wafaa wala waxaa wala waqaa yooyu wacc njëkk ak wacc mujj ñoo ràgg maqroon nag moom mooy nga xam ne wu ñaareel wa ak wu ñetteel wa ñoo bokk ràgg wu njëkk wa rek wér waaw mel ne tawaa lem na xam ne tawaya tàddoro bi rek njëkk moo ci wér ci mujj yëpp yaa ci mujj yëpp ràgg at tamarin al awal xayin ràññeelal fil ibaaraati ci wax yi al aatiyati aju dikk anwaaxal afxaali façon yi fial yi as saxiixat yi aji wér wal mu'tallati ak yi aji ràgg wasafa melaloon na tilmiidun ab elew kitaabaxoo téeréem ba faqaalte mu wax lii ne lii ñeel na ma kitaabun ab téere foofu boo xam ne moom anis yi mooy sama aji wettali fii waxshat yi ci sama wéetaay bi fi dee waxsha njaay àlluwaay mooy wéet in daawtuhoo ndeem woo naa ko danaa mu jege wa in saaltuhoo ndeem laaj naa ko shafaa mu saafara wa kafaa te mu doy wala te mu fekk laa yadin du nay isa danna ndem nay na ak zamaanu jamono ji wala ye jufoo te du bécc ngéele isa jafaa ndem bécc ngéele na alxullaanu xarit yi len am naa téere boo xam ne su ma naree wéet moo may wéttali su ma ko wooyee mu wuyu ma su ma ko laajee mu jox ma laa bëgg su jamono naqaree doo doo xam ci moom ne jamono naqari na su la xarit yi wanee jëflante bu ñaaw moom du ko def mukk yaruddu dana delloo almuxte aji juum ja itaana àndeem sori na xani sawaab bi walis jub ga wa yahditu muy gindi alxayraana aji gëlëm ja itaa xaada ndeem jeng na xani sadaadi walis jub ga waaw nee na boo demee ba nar a wàcc fa nga war a aw moo lay wëlbatee la ah yaa ngi juumkat boo demee ba nar a gëlëm itam moo lay gindi in waxaada ndeem digge na an jasa mu teewal dig ba wa in xaaxaada ndeem wëlërante na wafa mu matal wala rewa xawaa làq na mooy ëmb na axbaaral maadi na xibaar yi way wéy ña warawaate mu nettali ahadisal awwalina waxtaani way njëkk ña
maanaam xamoon nañ ci ñenn ñi ngay xaritoonteel ñu lay wéttali am na ci ñoo xam ne mën naa am ñu dige te duñu def lañu dige mbaa ñu wëlërante yow wëlbatiku wor mu ne téere nag moom saye boo jàpp ko muy sa wéttal ndax moom du la dig ba noppi nax la du wëlërante yow wëlbatiku wor la kon loolu mooy at tamrin al awal dafa bëgg dog bii mu la jox tàmbalee ci lii kitaabun ba nim daanoo nga seet fixal yi ci nekk ya ca wér nga wax ne yi dañoo wér ya ca ràgg nga wax ne yi dañoo ràgg at tamrin attaani nag moom dane bayin leeralal al afxaala fixal ya as saxiixata ya di aji wér wa anwaaxaha ak seeni xeet wal mu'tallata ak ay ajrag wa anwaaha ak seeni xeet fi ma yati ci li ñëw fi hal yi muy bëgg andi am na ci yu wër am na ci yu ràgg dafa bëgg nag ya wër nga ne fi hal bi daa wër ba noppi itam wax ban façon la ndax fi hal bu wër am na ñetti façon ñu bokkut fixal bu ràgg itam nga wax ne fixal bii daa ràgg boole ci wax nag ban façon la ndax fixal bu ràgg am na juróomi façon fixal yi mooy yasri dana rañaan yakulu dana lekk lamtal xaboo fuhu leen yam xoo dana far washa rambaaj na wala jam na jam googu na mooy njamul rafetal yadhabu dana dem lan tuhmi lii jët ngay négliser jigéen ji yasqi dana nàndal mbaa dana suuxat wasana peese na saamaxa baal na waxa doye dina yatwa dana bew lam tasmaha teggu leen yéen ñaar dawa lax na yaqussu dana nettali mbaa dana njàngat raama sàkku na akrama teral na boo ko defee akrim nag muy lamar muy teralal xassama seddale na wana doye dina mbaa yeexamtalu na amina wóolu na soo seetloo bi mu njëkk andi muy yësri yi moom daa bokk ci yu ràgg yi te itam bu la laajee ban façon la saye boo wax ne naaqis la ndax arafa ci mujj rek moo ràggoon mooy saraa bàyyikoon ci saraya yàkkulu moom boo delloo ci cosaan la akala lay doon te kon gannaaw bu mu nekkee sax yi bu la laajee façon ba saye boo wax ne day mahmuus lam talaxa boobu boobu nag moom day mu daarihu waaye boo ko delloo ci cosaan la laay ba day saxiix ba noppi nekk saalim boole ci nga xool nag yu ci des at tamrin at taalis da fi'lan mudaxafan fi lmakaani alxaali min ma yati léegi bëgg a dikk dafa bëgg fa dara nekkut nga teg fa fexal bu nekk mudaaxaf laata ngay indi albintu azzahrata ngay def foofu fexal bu nekk mudaaxaf mbaa nga ne mudaaxaf man nga ne jazzatil bintu azzahrata jazza boobu daal bu tooy lay doon nga boole ci att nag ndax albintu bi faaxilam day jigéen mu jazzat góob na maanaam watt na albintu xale bu jigéen ba azzahrata tóortóor ba diggante alxisaanu faswa ak alxajalata warukaay ba jaaral fi fixal bu mel noonu nekk nga ne alxisaanu jarra alxajalata jarra moy bi fi xëcc ñoddi bala nga andi an nasimu alilan nga defo fexal bu nekk mudahaf mba mudahaf lo ci wax baxna man nga def habba uppna habba al kubair la lool nga wéyele ko ci digënté al hawa'u ngelaw la muy air ba digënté mak al ahzana bangasya bala nga andi al madinu daynaho nga def fexal mel nonu mu jiitu leen laa bee ngay seen digganteem ak alwaladu xale ba abaahu baayam nga jaarale fexal bu mel noonu azil saalu bi firi yëngatu suuf bala nga ko andi ba ciy teg almanaasi la andil fexal bu nekk mudaxaf almuhallimu aji jàngale ja min ijaabati ci sama tontu bala nga andi loolu andil fi xal bu ko jiitu muy mudahaf kooku nag bu fekkoon nekk ki lay jàngal da nga koo laajal laaj ba mu mujj jéppi la man nga fee def kon mal la yokkat na التمرين الرابع اجعل كل اسم من الأسماء الآتية مبتدأ وأخبر عنه بجملة فعلية فعلها مثال فبغ لسمي ngay seen te juróom lañ bu ci ne nga def ko muy mubtada te nga xabare ko jumla fihal boo xam ne fihal ba day doon misaal niki al asadu gaynde mooy benn bi boo ne al asadu wataba xalal farisati gaynde gi wadd na dal ci kaw rëbb al farisatu aw rëbb siège woo lay doon wataba tëb na muy sote tombañ lay doon al xatiibu nga def ko noonu moom itam def ko mubtada def xabaram muy jumle fexal te fexal ba nekk misaal niki al xatiibu aji xutba ji waxaza waar na aljamaahata mbooloo ma nga def loolu nag al risalatu leetar ak alxitaaru terrain ak an naxwu naxwu at tamrin alxaamis moom daa tegal fialan fixal aji wafa bu nekk aji waf munaasiban buy aji yell fi kulli makaanin xaalin mimma yati bee bi nga siyeen dara nekku fa da nga fay teg fexal boo xam ne day nekk aji waf te yàlla foofa aji waf bu fàtte ne mooy boo xam ne arafu ca digg ba moo ràgg ñi ki diggante al muslimu julit ba ak ramadan mën nga fee def saama saama aji waf la bala ngaa andi al maridu aji tawat ja tuulal lay di diirub guddi gi mën ngaa andi naama naama nelaw na aji waf la alfa aru janax ja min al xitti ca muus ma man ngaa def xaafa alfa aru min al xitti allahu gawaran rahiman man nga ne rek kaana allahu gawaran rahiman nga def ko diggante al ardu suuf digganteem ak xawla samsi ci li wër jant bi def ko diggante al musaafiru aji tukki ja ilaa watanihi jëm ci am réewam def ko diggante al battatu kanaara ga digganteem ak fi naxari ca dex ga bala ngaa andi alxusfóoru picc ma min al xafas yi bàyyi ko ca kaafu ga nga andi foofu fexal bu nekk aji wof al mujtahidu aji farlu ja digganteem ak jaaisatayni bi firi ñaari prix wala ñaari kado man nga fee def naa la moom mu yomb lool xamarun al jaysh itam see boo def fi qaada wa matna xamrun xamar aljaysha arme ba التمرين السادس اجهل كل اسم من الأسماء الآتية فاعلا لفعل مضاره ناقص فبغ جلو بار ييغي سين بو نيك دا تارا بو بغ nga def ko nak muy faaxil te fexal ba koy jiitu nekk fi'lu mudaarihu tey naaqis boole ci bu jëkk bi mooy at tabibu médecin bi ci topp mooy al muaddinu aji nodd ja bi ci topp al qaanihu aji doylu bi ci topp al maridu aji tawat bi ci topp al madlumu kañu tooñ al madlumu jooju moom boo ko doon def man nga ne yashko dana jàmbat al madlumu kañu tooñ min zalimihi ci aju tooñam ja maanaam al mazlum kon def nga ko muy faahili yashko te yashko fihlul mudarihun mu nekk naqis la at tamrin as-sabi' da tegal lafifan maqrunan munasiban fi kulli makanin xaalin mimma yati dafa bëgg bëri dara nekkul nga teg fa fixal bu nekk lafif maqrun maanaam fixal boo xam ne arafu ñaareel wa ak ñetteel wa yépp ñoo tase ràgg alxaadimu mbindaan ma allahma yàpp wa man nga fay def moom shawa shawa bii firi wàjj la fiif maqaroon la bala ngaa def al jaraidu journal ya xabaran ab xabaar xajiban bi aju yéemu defal foofu fexal bu nekk la fiif maqaroon man nga ne rawatil jaraidu xabaran xajiban rawa nettali na foofu mu nekk lafif maqron la nga ne rawatil jaraidu xabaran xajiban addalu baag ba fil biiri ca teen ba man ngaa def foofu hawa hawa bi nga xam ne ak kubéer la day firi rot na nga def xawat dalu fil bi'ri nga jaal def ko diggante al maridu aji tawat ja ak xalal xamali ca liggéey ba bala ngaa indi annaaru sawara wa yada tifli loxol xale ba na nga ko def foofu al imaamu ilimaan ba it digganteem ak assalaata julli ga mu mën nga fee jaarale nawaa rek al imaamu nawas salaata at tamrin at tamin كون تسع جمل فعلية تشتمل كل ثلاث منها على نوع من أنواع الفعل الصحيح أبغى نفرمي جرومي أنت جملة وخمنة جملة فعل لني دون مانام جملة بتشنك فعل كوي تامبلي جرومي أنت جملة فعل دنكوي دف أي ñett ñett te ñett yu ci nekk moom fexeel ba nañu am benn façon ci façon yi fexal bu wér bul fàtte ne fexal bu wér am na salim am na mahmuus am na mudaxaf mbaa nga ne mudaxaf daa bëgg nag jumla bi bu nekkee juróom-ñeent yett nekk fee yett nekk fee yett nekk fee yett yu ne daal nañ làmboo benn façon ci façon yi fexal boobule wér dama iru rafi yi moo di damiri rafa al baarisatu yi aji feeñ al murtasidatu yi aji jokku bil afxaali ca fexal ya dafa am damir yoo xam ne dañu nekk palaasu rafa maanaam nekk faaxil mbaa naayib ba noppi tam sës ca fexal ba jokk ca fexal ba yooyu la bëgg a boole ci leçon bi mu njëkkee al am silatu fahimtu dégg naa duroos yi samay leçon fahima boobu mooy dégguk xam bu dee dégguk nopp moom mooy samia fahim naa dégg nanu duroosanaa sunuy leçon ak tilmisaani ñaari élèves ya fahima dégg nañ ñoom ñaar duroo saxuma seeni leçon ak talaamiidu élèves ya fahimoo dégg nañu duroo saxum seeni leçon ak tilmiidaatu élèves yu jigéen ya ak talaamiid ci jublu yu góor ya tax mu delloo ca waaw ak tilmiidaatu nag jamax mu ànnas wi mu jublu ci élèves yu jigéen ya fahim na dégg nañu duroo saxun na seeni leçon anti yow jigéen ji ma jàkkaar lool taf xamiina da nga dégg duroo sàkki say leçon al waladaani ñaari xale ya yafhamaani danañu dégg ñoom ñaar duroo saxuma seeni leçon antum yéen mbooloo mu góor mi tafhamoona da ngeen dégg duroo sakum seeni leçon albanaatu xale yu jigéen ya yafham na danañu dégg duroo saxun na seeni leçon boo xoolee ci suuf nag lamar yi mooy ifham yi déggal yow jigéen ji duroo saki say leçon ifhama dégg leen yéen ñaar duroo sakuma seeni leçon ifhamoo dégg leen yéen mbooloo mu góor mi duroo sakum seeni leçon ifham na dégg leen yéen mbooloo mu jigéen mi duroo sakun na seeni leçon nga ñëw ci albaas amaamaka nekk na ci sa kanam salaasatu aqsaamin ñetti xaaj minal amsilati ci ay misaal alqismu xaaj ba al awalu bi aji jëkk yosh tamit dana làmboo xalaa af xaalin ci ay fexal maadi yetin ju nekk ay maad wastaani xaaju ñaareel ba moom dana làmboo xalaa af xaalin ci ay fexal mudaarihat ñu nekk ay mudaarihum wastaalisu xaaj ñetteel ba dana làmboo xalaa af xaalin ci ay fexal amriyat ñu ko jóg lamar dina boo xoolee misaal yi ñu jàng léegi dañ koo def ñetti xaaj ca kaw dafa am xaaj bu féete ci ndeyjoor am bu féete ci càmmooñ nga ñetteelu ko nag xaaj bi ñu féetale ci suuf mu ne nag boo xoolee xaaj bu njëkk ba ku ca ne maanaam misaal mu ca ne fihilul maadin moo ca nekk gis nga ba tàmbalee fahimtu fahima fihilul maadin la fahim naa gis nga noonu ak fahima ak fahimoo fahim na xaaj ba féete ci càmmoñ ca kaw nag misaal mu ci ne am na fihilun mudaarihun te mooy tafhamiina ak yafhamaani ak tafhamuuna ak yafham na bi ci suuf nag moom ay lamar rekk ci nekk ifhami ifhama ifhamoo ifham na wa nuriidu danoon namm wa nuriidu fi hada darsi ci bile leçon an naxsura nu takk lakka ñeel la damaira rafi damiri rafaaya al baarisata yi aji feeñ al muttasilata yi aji jokk bil afaali ca fixal ya bi anwaahiha ci seeni façon ak talaasati yet yet liñ jubli ci leçon bi nag mooy fexe ba nga mën a takk damiri rafaaya yi nga xam ne dañuy feeñ ba noppi di jokk ci fixal te ñu nekk ñetti façon ndax da ci am yu jokk ci maadi am ci yu jokk ci mudaarihu am ci yu jokk ci lamar am ci yoo xam nag moom mën nañoo jokk ci maadi mën nañoo jokk ci mudaarihu mën nañoo jokk ci lamar yépp mën nañ ko fa ida nazarta boo xoolee fii am silat xismi ci misaali xaaj ba al awali ba jëkk raayta nga gis ne an na damaira rafi naka damiri rafaaya allati ya nga xam ne tat tasil danañu jokk bil afxaali ca fixal ya almaadiyat yi ay maad hiya ñoom atta u mooy taa wa takoonu dana nekk nag moom taa lil mutakallimi ñeel aji wax wal muxaatabi ak ku ñu wàqanteel ku góor al muxaatab mooy ku ñu wàqanteel ku góor wal muxaatabati ak ku ñu wàqanteel ku jigéen wal muxaatabayni ak ñaar ñu ñuy wàqanteel wal muxaatabiina ak mbooloo mu góor mu ñuy wàqanteel wal muxaatabaati ak mbooloo mu jigéen ma ñuy wàqanteel wana ak naa wa aliful isnayni ak alifuk ñaar wa waawul jamaahati ak waawuk mbooloo mu góor wa noonu niswati ak noonuk mbooloo mu jigéen ma boo xoolee ci xaaj bi njëkk ba da nga gis ne damir rafaa yi jokk ci fiilu màdd mën naa doon naa ni ki fahim naa mën naa doon alif gi dellu ci ñaar ni ki fahima mën naa doon waaw gi dellu ci mbooloo mu góor ni ki fahimoo mën naa doon na bi dellu ci mbooloo mu jigéen ci bi nga ne fahim na waaye nag ki ci gën a yaatu moom mooy taa daa wax taa rek nag waaye day def bu fekkee ne yow la taa gi da nga koy maas maas ko lonk muy fahim tu bu dee góor gu wàqanteel nga maas ko tax ni ki fahim tax bu dee jigéen ji ngay wàqanteel nga def ko ti muy fahim ti bu dee ñaar ñi ngay wàqanteel donte kenn kay góor kenn kay jigéen mbaa ñaar ñëpp di jigéen da nga koy def tuma muy fahim tuma bu dee mbooloo mu góor nag nga def ko tum bu dee mbooloo mu jigéen ma nga def ko tunna kon mbooloo mu góor mi fahim tum lay doon mbooloo mu jigéen mi fahim tunna lay doon li ma wax léegi ne bu dee yow dama cee jublu rek bu dee yow ci sa bopp yaay wax nangam naa li ki fahimtu dégg naa boobaa tu lay doon ci sépp nag ñu ñuy waxanteel la benn muy góor ga muy ta mbaa jigéen ja muy ti wala ñaar ña muy tuma mbaa mbooloo mu góor ma muy tum mbaa mbooloo mu jigéen ma muy tunna wa ida taamalta boo seetantalee am silatal qismayni misaali ñaari xaaj ña te attaani mooy ba ñaareel wa taalisi ak ba ñetteel raayta nga gis ne anna damaira rafi nag damiri rafaaya allati ya nga xam ne tat tasilu danañ jokku tat tasilu bil mudaarihi ci mudaarihi wala amri ak lamar yee ñoom yaa ul muxaatabati mooy yaay jigéen ja ñi waqanteel wa aliful isnayni ak alifu ñaar wa waawul jamaahati ak waawu mbooloo mu góor wa noonu niswati ak noonu mbooloo mu jigéen boo seetloo nag xaaj bañ ne ay mudaarif ñoo ci nekk ak bi féeti suuf ñu ne ay lamar ñoo ci nekk da nga gis ne tamit refaa yi mën a jokk ci ñoom mën naa doon yaayu jigéen di nga wàqanteel niki bu dee ci mudaarif ma muy tafhamiina bu dee ci lamar muy ifhamii ak alif gi dellu ci ñaar niki yafhamaani ak boo ne ifhama dégg leen yéen ñaar waaw mbooloom góor mi itam bu dee ca mudaarif ma yafhamoona mbaa tafhamoona lu ci nekk mën naa am bu dee ca lamar ba muy ifhamoo moom ngi dee ci mbooloo mu jigéen ba tey mën naa am ca mudaari mën naa am ci lamar niki yafham na daal di na moo jokk noonu googu boo ne ifham na dégg leen nag muy lamar ba tey noonu gi jokk na ci mu ñëw ci alqawaidu régal yi damairu rafi damiri rafaaya albaarisatu yi aji feeñ allati ya nga xam ne tat tasil danañu jokk bil maadi ci almaadi yee ñoom atta u mooy taa wa naa ak naa wa aliful isnayni ak alif ñaar wa waawul jamaahati ak waawuk mbooloo mu góor wa noonu niswati ak noonu mbooloo mu jigéen ma dami rafaa yi nga xam ne ñooy jokk ci alfiilul maadi yi man ngaa njëkk a wàññi taa waaye taa mën naa nekk tu moom taa gi mën naa nekk ta mën naa nekk ti mën naa nekk tuma mën naa nekk tum mën naa nekk tunna yépp dugg na ci biir nga boole ci naa nag naa nag dana jokk ci almaadi yi nekk palaasu rafaa waaye itam dana ci jokk nag nekk ma foolum bi si nekk bérébu nasab fi mu wax ni nag moom mooy bu naa jokkoo ba noppi doon faaxil mbaa naa it nga xam ne kon bérébu rafaa la nekkee li nga koy xàmmee nag mooy la jiitu naaga dañ koy sukkoon maanaam masque ak néeg moo fay nekk di ki fahim naa alifu ñaar noonu dana jokk ci almaad yi gis nga ko waaw mbooloo mu góor misaal nañ ko noonu mbooloo mu jigéen noonu damairu rafi damiru rafaaya albaarisatu yi aji feeñ allati ya nga xam ne tat tasil danañ jokk bil mudaarihi ci mudaarihi wala amri ak lamar hiya ñoom mooy yaawul muxaatabati yaayu jigéen ja ñuy wàqanteel wa aliful isnayn ak alifu ñaar wa waawul jamaahati ak waawu mbooloo mu góor wa noonu niswati ak noonu mbooloo mu jigéen damiru rafaa yi jokk ci fiilu mudaarihi ak lamar ñooyam képp yenn yi rek la mën naa doon yaayu jenn jigéen ji ngay wàqanteel wala alif gi dellu ci ñaar ak waaw gi dellu ci mbooloo mu góor ak noon gi dellu ci mbooloo mu jigéen bu jàll si ci tamarin yi at tamrin al awal bayin leeralal dama ir rafi damiri rafa al muttasilata yi aji jokk bil afaali ci finaal ya allati yi nga xam ne fil xibaaraati nekk nañ ci wax yi al aatiyat yi aji dikk suma dukur topp nga tudd maa la nga xam ne baqee des na min haa ci ñoom wax yi mu lay bëgg andil am na ay damir rafaa yu jokk ci ay fexal nekk ci biir yooyu nga bëgg nga leeral leen nag boo leen leeralee nga boole ci leeral ya nga xam ne ñëwuñu ci biir wax ji te teewul rek ñu bokk ci damiri dafa yu jokk ci final waaye daal ñëwuñu ci biir wax ji na nga leen leeral gannaaw boo leeralee nag yi ñëw ci biir wax ji wax ji mooy xarajtu génnoon naa xarajtu maha taifatin ànd ak ab kuréel baa nga ne ab groupe baa nga ne mbooloo minal asdiqaa yi ci ay xarit li ziyaarati daaril asaari ngir visité kërug jeexit ya daarul asaar mooy kërug aada yeeg cosaan yi maanaam daal li ñuy wax musée fa ñu dajale dañ doon ne woon ci maam yaag maamaat ya mu yëf yu yàgg-yàgg ñu koy fonk ndax